ci Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax fi ñu leen daan nuyoo yéen a ko gisandoo tey dañoo ñëw fii Thiaroye Thiaroye nag bu ñu ñëwee fekk champion bu mag muy ki nga xam ne moom mooy Coly Faye numéro 2 bëre woon temps yi passé ngeen gis la ci yàlla def ndax ndam yàlla rek ko moom waaye kenn ku ne làmb bu ñuy dugg ñaari ndamay dugg waaye benay génn ma ànd ak yàgg maar sama caméraman bu ñaawul bi waaye nuyu nga am ñëpp ñëw waay Thiaroye di ci Max Mbargane nag ak képp koo xam ne yaa ngi yeewoo caaro yi bàyyiwuñu kenn ñoom père Alioune Diop ñu ngi leen di nuyu baax a baax waaye di nuyu équipe Leewtoo tey gis ngeen fi ma feeñee ci kaw charette ab ngayeen laa nekkal waa booy na nga def. maa rek. noo tudd. Alaaji. Alaaji. Gaye. Gaye. ci open press. waaw. ah xam nga. Coly Faye. da demee combat bi. Ah, day daan day gaaw. Nandy Fall lay bëreel de. kooku ñoo ko mën. ah lu tax nga wax ko ah, si bëree. Ah. Ah. <laughs> yaa ci gis yàgg maar. yéen a ko déggandoo. Alaaji nee daa ñëwoon ci open press bi. yore fasam waaye man nii laa koy dàqee. ñu dem ànd ak nga xool yàgg maar ayja ali mbokki Leewtoo yéen a gisandoo. yàgg maar yaa ngi gis gaa yaa ngi ni xale yi nga xool rang bi yëpp ñii ñëpp ngay gis ci kaw ba ci kaw étage ba yàgg sans pour autant dañu dem ci biir fekki gaa yi jox leen ci fees waaw ndeysaan oh, lamb xale yaa ngi wis ay gàllaaj xanaa lii mooy amul séeréer doomi caaroy bi nan ni fan la war a bëreel xoolal mu ngay wër géwél ga laa ilaaha illallah mu ngay wër géwél ga am la mu yor rëdd na ko ci suuf ko léegi noonu ah Wally Faye beneen ñëwin la ñëw xale baa ngay wis mu ngay wis ndeysaan gis nga doomu dayam secret nañu am na la ñuy wax xoolal jox na ko beneen butéel yàgg maar guux na ca benn ñaar ñett ñeenti yoon def ca loxo ba raxasoo na ko diw ca kanam ga eh xale bi eh Coly Faye Kuli fay kali ana bàyyi faal sama waay la wallaay bul jege san wallaay bul jege bulala ge wa bulala ge wa mama lamin lamsar ay mama lamin lamsare di jogo am dare ge ndeysaan bëgg Mama Lamine sa loxo ci kaw waaw waaw goree di woon ku ci bëgg Mama Lamine siri xadi doy laay waay sa bay sa loxo ci kaw ya sa bay waaw goree di woon mara gugul gugul gugul mara gugul mara gugul dëkka mara gugul madar cam lam lam madar waaw waaw madar dañu delluwaat xaaral mara gugul kon waay kay wax di ko may wës di jëf ey mar la gugul gugul gugul mar la gugul di ko may mar kafe gi xel ma naan foo jëm cee kay cee laay bu teg ko fii incha allah ku bëgg Serigne Babacar damaa bëgg nga tàccul ma Coly Faye jaajëf waaye di remercier sunu mbokki journaliste yi waaw fii ci Caaroy bokk na ci li ma gën a jaaxal xale yi dafa mel ni tey jouru combat la xoolal xale yi soxna si naa def ñooy fi open presse bi rek moo ko waral kon press moo tax ngeen niroole nii. Ah, waaw kori rek. Ah. waaw. xam ngeen kolifa yi ko bu baax. xam nañ ko bu baax. barki sëñ Fallou Mbaka fulla ak fayda la ñuy def te buñ bil la dañ koy daan si jom ñibbi si si jom dinañu entraîné ñu kafu ñu reetaan ñu fulla lañ def barki sëñ Fallou doo ne ko ay danaa moo ko wax yéen a ko déggandoo xoolal kolifa yo ko waral waaye waaye waaye dama gis beneen nirowaale man man ay yéen yéen nirowaale bi lan la kolifay rek ndam rek incha allah yal nañu may ndam lu seddu guyu barki yonent bi mu jig ñu lool ndax koli dafa nekk nit ku baax nit ku yaatu nit ku yaru te boolewul daraa ki nañu yàlla may fekkee tal rek ñu dem dóor ko mu daan incha allah day saaf i talaxu caare la muy saaf naan caare lamsaar du benn sorewuñ tale moo leen utale naan fa du dërëm ndam rek incha allah maa ngi lay fay per. waaw tey sa doomu mu mel ni da ngeen dem stade. non mais xam nga waaj daa métti rek. mais bu jotee rek yomb. ba ba lay ñuy waaj ak moom yaakaar naa ne affaire bi deux jours moo des benn fan. waaw buñ ci yegteeg jàmm rek ñuy ñaan yàlla suñu borom may ko fay ndam bu seddu guy ndax mérito na ko quoi aussi. mais xam ngeen leen di xaar ci seen adversaire. bien sûr mbër moo jël xamal ni daa pare pour daan la waaye parewul pour daanu. waaye qualifié nag ñun sañ nañ ñaan suñu borom ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na ko suñu borom defal ndam bu kaw njot man pare na di xaar le 27 rek yàlla defal ma sama diggante ak Jokal waaw waaw am naa combat ñun mënuñu mënuñu mësuñu jógee si loolu ñàkk bañ am moo tax xam nga waaw yàlla ko suñu borom yombal daal oyofal ko muy oyof ah, mu mel ni da ñun ci loolu lañ dëkk confiance lépp waaj na nii war a yëpp di xaar suuf jot rek ñu def li ñu war a def si kattanu yàlla incha allahu rabi jaajëf. ñu gisandoo mbokki Leewtoo mbër yi caaro yi nu mu booloo coach il faut wax ci caaro yi nu mu booloo. waaw loolu loolu yoon la lu yàgg woon mais xale yee jaaroo jaarul woon ci yoon rek mais léegi mag yi waxtaan nañu ñoom ñëpp ñu ngi doon benn la ñun lamsaar la ñuy jógee ñoo jàppale leen parce que mbooloo mooy doole. ñun kot si lamsaar lamsaar laa mais mbooloo mooy doole moo tax ñu ñëw suñu doom jàppale ko Coly Faye pour yàlla may ko ndam ci combat bi mu jëm. am ndam. incha allah loolu lañ liggéey nañu loolu lu ñuy may ndam liggéey nañ ko waaw am nañ confiance si moom. waaw ngeen def open press xale yi yëpp si mu mel ni stade la lan la def ci yow. mais lii daf fi yàgg caaro lii daf fi yàgg lamsaar lii daf fi yàgg jaaxaluñu daf fi yàgg te allah bii lañ yóbbu stade am ndam incha allah ajab lay fay yi na waan yàlla bismillah ma sant yàlla julli bi gërëm sama ñaari waajur waaw di sant sama sëriñ Cheikh Modou Fallou Fall di sant sëñ Sidi Alxuraan waaw ñu ñëw fii gis waa Thiaroye yëpp génn mbooloo bi sa mbokk mbër ñëpp ñëw Coly lu mu yëg ci loolu li may yëg kontaan waa ndax nit amoolul say mbokk boo wootee ñu fekk si la waaw xëy na yar wan ak cër ak respect mi jox mo ñu may teewal waaw may sant yàlla bu baax di woo caare géej wax leen man seen doom laa man caare laa dëkk man caare xam laa bëgg ñu xamoon dama fi wàllu yaan titre foncier laa fi am fii laa dëkk dama bëgg ko nu ñuy jàppale mbëri man su ma bëri jee couleur caare laay bëree su ma amee ndam du ma ko yóbbu fenn furul caare mais man dama bokkul lamsaar nga nit ñi mën a ànd ñooy ànd mais ñi mënu ànd ñu musa ànd nga jaam da ngay nangu ndogal yàlla suñu borom may jaare sëñ Moussa yaayam fi jógee bërki démb fa mu jëm jël ko fi mu jugee gars yi ma leen ñaan di leen wax ni man ma bëgg ñu xam ne man seen doom laa caare laa nekk caare laa dëkk mais lamsaar dafa bokk si man lamsaar mënu ñu koo génne si caare yi caare mënu ñu koo génne si lamsaar yaa ngi dégg jaam da ngay nangu ndogal yàlla suñu borom boo nangoo doo sonn sa du jeex di gërëm sama gaay yëpp waa lamsaar di leen gërëm di gërëm waa caare yi jàmm gën si ka mbaaw caare yu asir caare géej sib cinéma fenn di gërëm sama gars yi waa mbaar mi derki ndaay man derki ndaa laa ba keroog may dee barki sëñ Bamba dégg naa ay gars yi di wax moom sax moom naan di faal naan balaa faal dañ ciy dem mais mbër boo xam ne da nga am teglante ñaari defet moom mu teglante ñaari defet mu mel ni combat bi kon ku ci daanu rek waxuñu doo bàyyi làmb de mais sa làmb dina metti est ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel làmb folo waaye ko daanu rus sama làmb ji sama làmb la man la jour ji di nga xam ak fi ma jëm xam naa ko bu baax da ngay xool si ñaari defet yi ma jugee ak adversaire taay bi ma amaat ma koy sant yàlla bu baax di ko ñaan suñu borom ñëw xaala ma yoon rek ma jàll. am ñoo xam ne dañuy wax ne techniquement daan di faal moo la dàq yaa ngi dégg loolu. xamal moo dañuy wax loolu daan di faal kan la daan. santa laaj jeexal na bu yàgg mama yaa boobu amul bëre yaa ngi dégg. Nandy Fall kan la fi daan morom yi bëree lañ koo daan man kéwél mi wax daan na ko combat mosuma ko seetaan yow fekke nga ko. kéwél bi daan kan. Nandy Fall neen dafa daan kéwél fekk nga ko yow. ah déet yow kay man kay. yow journaliste nga yaa ngi man boobu man maa lay laaj di. waaw yow journaliste nga yaa ngi ci delloo question bi Nandy Fall fa xam nga la moo nee xam samedi ñu wax ci sa digganteeg Nandy Fall yéen ñaar dàq bëre googu da nga koy nangu wala nangu woo. Nandy Fall mënuma dàq bëre ndax ko am 18 doo cuune man dama man dama dama dama ràññee si mbapat treize victoire quatre défaite bi mooy sama quatorze victoire incha allah waaw. côté doole yéen ñaar kan moo ko ëppale. bu jaabante bi ba incha di ngeen ko xam barki sëñ Bamba buy roofuloo man ak moom dina mel ne bâtiment bu dal si kaw oto. naan di mbëru Grand la te yàgg naa mbapat de. mbëru Caaray la te yàgg naa mbapat mbaru Caaray Lamsaar mbaru Derki maa ngi nii mbaru Nante maa ngi nii barki sëñ Bamba Mbacke man Baye Fall laa man xoolal ku dul Baye barki maam Cheikh Fall Baye Fall moo la gën man Baye Fall laa. ma biram nee na ma excès de confiance bi ngay dégager maanaam di ko ne vraiment yow dafa mel ni lamb ji yaa ko moom quoi nii laa mu samel du ma changé ak ci dafa confiance ba keroog may dee di nekk su may dee sax dama am confiance damay dund jour boobu ah. waaw. maanaam loolu foo ko teg ci côté bëre bi dàq bëre bi ëpp dool wala doon xale bi. xam li ma liggéey li nekk sama deret ma xam ko xam li nekk si man moo tax ma wóolu sama bopp am confiance boobu. kon la ku gis rëg-rëg gis la ku gis Siteu gis la rëg-rëg jóge bër kii dem si ndam lu rëy ndam lu rëy diggante ma Gris nga bokk si ñi nga xam ne fu ñu leen gis gis maanaam fu ñu ko gis gis la est-ce que loolu du nekk sas ci yow wala pression pour que nga mën a indi ndam comme moom. man laa mu ñu ne bëri naa ko rëg-rëg xëy na bëre mook Balla Gaye si ñoom ma xëy bëre mu daan ma daan. Siteu bari na daan ma bari daan ma bari daan Youssou mu bari daan Zarko kon loolu du pression si man non. côté mobilisation loo man a wax promoteur bi ak say supporters pour samedi. lamb ji may ni waxal lamb ji incha allah rabbi ñoo fay ëpp ma sama tribune nii ma xamee woon dama koy fees ba mu rembet incha allah waaw may bëgg der ki yëpp nag di leen sant di leen gërëm ma seen fay barki sëñ Bamba ñoom dan maa yëg man a ñoom ñoo far fu ma wootee ñu wuy si ma barki sëñ Bamba Mbacke yàlla na leen borom bi fay seen xol balaa weer wi déwén kenn ku si nekk yàlla na la fekk États-Unis wala Espagne wala Italie fi ci man barki sëñ man nag surtout bi ñëpp dawee waa mbaar mi ñoo fi des waa mbaar mi bi ñëpp dawee ñoo fi des barki sëñ ma wax laa lay wax lii dama koy wax ci presse wax nañu ba son boobu dama koy wax dama tegle deux défaites ñaata victoire laa tegle ñaata victoire ñaata champion laa fi daan ñaata laa fi daan ma am teg la deux défaites gisatuma kenn déggatuma kenn sama téléphone dinaa toog deux semaines du ma dégg appel may nekk ci biir waa mbaar mi di fa jógee di dem ci derki ndaay di jógee ci derki di fanaan ci biir waa mbaar mi ñu nekk ak man bu ñu xëyee bu ñu amee 1000 francs may ma ma reer bu ñu amee téeméer may ma ndékki barki sëñ Bamba Mbàkke ku ma bëggale waa mbaar mi ku ma bëgg ma nag ma bëggale waa mbaar ak derki ndaay ama lulu ñoom may woo autorité Thiaroye Géej yëpp na ñëw jàppale ma ci combat dañ ma ñëw teg loxo ma dem man seen doom laa su ma amee combat su ma amee ndam fii laa ko indi caaray du ma ko yóbbu feneen furul caaray. daan na am na looy moytu ci moom. non gisuma ko de gisuma lu may naan mooy moytu dëgg fa yàlla gisuma ko. sa digganteeg Siteu ci lu gàtt a tënkal parce gis saa yooyu bëri ay nitam ak ñëppam gis naa aboo ngi ni taxaw ñoom Abdou Seck ah ak gars yi. ñii ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp nous sommes les mêmes ñun ñëpp benn la ñoo bokk ndey ak baay ñoo far barki sëñ Bamba ñun ay samedi ak dimanche dam waaw. Yaana Thiaroye ak Lamsaar benn la ngay bëre samedi ak Ndandi Fall fëgg la di bëre dimanche ak double moteur double moteur moom itam xanaa am na loo ko war a ak loo fëgg la non loolu loolu waxam moom fëgg la di ñaanal fëgg la suñu borom may ko ndam incha allah si kaw Ndandi Fall si looy tàggoo waaw li may tàggoo mooy di woo waa Thiaroye Géej yëpp di waa koñ bi bu fekkee def naa fi lu ñaaw bu fekkee xatal naa leen wala sonal naa maa ngi jégalu sant kër yi kër almaami kër père Amath ay kër Arona di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di jégalu ñëpp daal di woo ñëpp ñoo jàpp si combat bi waaw di sant ñëpp daal waaw ba ci yow damay fecc li la ma daan fecc cay derki ndaa boobu laa indi bii moom laa indi bii yoon fees del dama koy sarre ba mu fees dara du ñëwaat incha allah na ne fa